ñu ngi fii nga xamante ne bi rek moom moo di zawiya Serigne Babacar Sy gis nañu fi mbooloo mu takkoo takku bàyyeekoo fu ne ci réew mi ñëw ngir def ñaan wante itam ñëw di photo comme ni ngeen ko gisee ñenn bi dañoo ñëw tey ngir def ay euh, euh, moo des ñu daal di yegg ci gàmmu si ñoom nag jël nañu leen ñu daal di témoigner par rapport ak li nga xamante ne bi moo leen fi tax a jóg tey wante itam euh, yoon wi nga xamante ne bi rek jaar nañu fa ngir mën a yegg si fi ci diwaanu Tivaouane ci dëkk bu sell bi la ñu teelu si ñoom seen kaddu soo ko ñëwaat léegi léegi. Maimouna Ndiaye laa tudd maa ngi jugee Rufisque. ah yoon bi métti woon na trop nag mais sant yàlla. waaw vu que mbégte lañ fi jële ak bànneex yokkute yaa am ngeen xam daal. donc noo fas yéene waajalee gàmm gi suba la. ah suba la dañuy def lu simple rek xam suñu maam moom bëggul woon yu ëpp yooyu noonu donc dañuy julli. jàpp julli ñaan ci yàlla ci barkeem yaa ma gën a xam daal. Euh, zawiya sëñ Babacar la dañoo ñëwoon ñaan yàlla yokku leeram xam nga def jàmm ci dëkk bi ñaanal àdduna yëpp yaa ma gën a xam ñaanal suñu bopp yokkute réussite. am ay jëkkër yu baax nag. <laughs> Modou Diagne maa ngi jógee Kaolack ah ñun de dundu ñu dara lu dul mbégte parce que bëgg-bëgg la ñu ñëw fi ngir ñëw ziyaara ci sëñ bi moo tax bi moom météo na yëguñ dara parce que benn yëg-yëg lañ mooy ñëw ziyaara ji sëñ sëriñ bi waaw nuñ koy lu dul ndaa ñëw gaay daal teeru nañ ci jàmmo ñu ngi dal jàmmo tamit ñu ngi lekk bu suur di naan ba mande ñu ngi ñëw di ziyaara ci jàmmo daal te awan daal macha am Lamsar mbette daal xol daal sedd na ak changement yu bari tamit gis nañ ko fi tamit ñu ngi départ 5h46 9h fi fi la ñu fekk. Elimane Dia dëkk Jolof. say ba man la gàmm gi neex na ba pare rek sant yàlla bu baax comme yàlla dimbali nañu ñi agsi nañ ci jàmm ah alhamdulilah di ñaan lépp loo xamante ne bii ah suñu borom euh, sant nañu ko rek def nañ ko ak borom bis bi yàlla na yàlla def jàmm. Euh, képp ku faay mën di jógee rek nga ak si jàmm delluwaat ci jàmm. waaw yoon bi moom alhamdulilah sant yàlla bu baax ndax ñu ngi fi jógee 7 heures ñu ngi agsi 10 heures 11 kon alhamdulilah ñuy sant yàlla bu baax ci côté boobu moom it. voilà mu ngi noonu kon muy témoignage boo xamante ne bi rek daanaka ñenn ci pèlerin yi ñoo ko daal di yëkkati jëm ci gàmmu gi naka lañ koy gàmmu wante itam waajtaay li fan la euh, tollu gis ngeen ko nag comme ni ma ko waxee léegi ñii di photo ak ñi nga xamante ne bi ñoo ñëw ngir mën a def seen ziar ci zawiya Serigne Babacar si fii ci diwaanu tiwaawan takk der itam fees nañ dell ci bërëb bi waajtaay li kon mu ngi mel ni tulli ak malli ci diwaanu Tivaouane dëkk bu sell bi lee kon nag mu nekkoon Biram Ndaw fii ci diwaanu Tivaouane ngir Leral TV Thank you.